information bi ñu wax léegi euh, ne euh, ci kër Barthélémy Diaz euh, dañ fa envoyé ay nervi ñu ngi ni ci buntu kër Barthélémy Diaz ki fekkee mbir mi di naan tungu du teew ñi nataal soxna si lu xew. ah li xew mooy que ne il à Baobab y avait des nervis qui mais. waaw Baobab dafa amoon ay nervis yi ñu fi indi woon. waaw ay Samba Boy par contre dañoo ñëw romb mais nag ku xam Barthélémy Diaz. xam ku fi dëkk képp ku fi dëkk dëkk biir Baobab bi am na foo loo xamante ne waroo koo sañ parce que boo ko defee it na la leer ne doo tëdd say mbokk du ñu tëdd ndax duñu leen may jàmm du Barthélemy moo koy lijjanti ñun ñi nekk ak Barthélemy ñooy lijjanti loolu bala amuy ñëw ñëw ba fi nag moom peine perdue la mun naa toog. donc euh, amoon na ay néel fii mais dañ fi jaar rek. mais aussi fekk nañ fi sécurité bu mat sëkk. bien fekk nañ fi sécurité bu mat sëkk. ñi war a taxaw taxaw nañu ñu ngi toog nag di xaar moom na gérer côté bale rek côté bii moom yàlla baax na ñu ngi toog di xaar dara du xew bu soobee yàlla. jërëjëf euh, soxna si tur bi naka la sax. Safiatou Gueye mooy sama tur mais ñu ngi ma gën a xamee ci ma turu Mami Kassé je suis la présidente du maire Barthélémy Diaz maay présidente am. merci beaucoup.